salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen wax ne tey ñoo ngi fi ñaari tali fekk si fi xale bu mën a bëre muy caat mu am làmb ju mag nag moo moo bu yoof ñu ñëw seet si ko fi waa waxtaan ak moom ci li mu jógee ci li mu jot a weesu fu mu démarré ak lépp ak nu muy waajee combat bi tey ñëw seet si ko fi ñaari tali fekk ko biir këram war nuyoo fii xool nu mu toogee ak nan lay waajee làmb ji aca ñu def salaamaaleykum yaay booy nuyu naa la. salaam maa fi la dëkk. waa fii la dëkk de. ana caat. caat mu ci biir. Ah. waaw man leen dugg xool ko. waaw man ngeen dugg gis ko. Adama. ndaanaan siyaar naa la. yaa ngi am jàmm waaw sant yàlla bu journée bi alhamdulilah nice maa ngi ñëw laaj mais mais yaa ngi ci biir waaw dëgg la boobu maa ngi si biir sama bàjjen la waaw moo ne si bunt waaw naka naka ñaari tali waa ñaari mu ngi ne comme d'habitude rek ah. alhamdulilah nan la ñuy waxee EGNB e wala NGB NGB waa NGB waaw ñëpp nga si jàmm sant yàlla bu baax a baax tey ñu bu seet si la bëggoon waxtaan ak yow ci ah, li nga jógee làmb ji nga jëm uh-huh. ngay daje xale bu mën a bëre waaw dëgg la mooy yoon waa comme li yeneen champion yi rek. yi ah. fi yeneen champion yi fekk rek bu ñëwee soobee yàlla loolu lay fekk. Ah. si kattanu yàlla. kon mën nañoo dugg ci biir yeeg waxtaan bi mën Thiat nuyuwaat naa la. waaw maa ngi delloo ziar xam nga avant tout damay nuyu sama mbokk séeréer noo foxale séeréer mais sim naan ngonu fay sima ngonu képp na noo a ma ziyaaram a joxoma njal to le fa moo jeex rawatina andun hiireen me rek mi Thiat me ko na besane o sik teen dam teen parce que no séeréer nuun yaakaaru i yaakaaru laxasa fene no rawatina jonwa fane gen ma itam me xoya fop goor ma fateɓ wa simoleng andun hiire ndar kep nufno sereto leyame e caate saku ya ñannawo te refo koor wa a refo tewa a refo ndeɓonga a refo maako wa lamb de di siyaar yen tamit xama di sant sama supporters yi lu ko jëre ñaatal si kaw ba suuf xama dugg biir liberté 4 xam nga wàcc ñëw dugg Taïba Grand Dakar waa ko njaay zone mais zone A xam nga di bëggee di woowu waa Taïba tam dawkatu sareet yi xam nga di bëggee waa zone A tamit bu baax a baax waa asalem 5 hmm. lan moo waral caat bi waaw turu caat bi man caat laa si ndey caat laa si bàyyi parce que dama juddu dégg sama yaay di ma wooyu caat ñeneen di ma wooyu caat loolu moo di caat boobu law ba si làmb bi di tey parce que caat laay sama ndey caat laay sama bàyyi moo war a la nga ñëw toftal ci caatu booy bambara lu waral loolu choix boobu. waaw caatu booy bambara bu ma ñëwee si écurie ma nekkoon ma nekkoon écurie booy bambara ma ñëw nekk caatu booy ma ñëw nekk si écurie bi ñu may wooyu caatu booyam fekk su may bëri làmb dam caat laay bindu mba temps ba pat après ba ma yàlla demee ma ñëw dimbale ma ñëw Dakar gars yi jël caat bi boole si caatu booy bambara parce que caatu booy bambara bi parce que dafa am tafaa booy bambara xam nga mbër bu fa nekk rek foog booy bamba affaire booy bambara bi topp sa ginnaaw. parce que waaw ndax turu équipe bi quoi. Mm-hmm. waaw ak turu paa bi ak dayo paa bi li paa bi def si làmb ma toog nag gars yi taftal ma caatu booy bambara tamit man ma accepté ko mu nekk loo xam ne tamit dama si fier te jig na ma tamit. Mm-hmm. ñu gis la nga nekk mbër moo xamante ni da nga nekkoon mbëru dëkk. muy Dionewar lan moo waral nga jógee Dionewar ñëw Dakar. waaw li war a ma jógee Dionewar ñëw dakaar leneen rek la comme bëre dóor bi fii yàlla yàlla yàlla def ma dimbali tey bokk naa si ñi ko dëkk def jóge Dionewar xam nga ñëw def si fii bëre dóor xam nga loolu ma koy sant yàlla bu baax ba am ñoo xam ne sama moroom mbër ñun bokk nañ ñi ko defante muy man mu Siteu xam nga bokk nañu ñun ñi nga xam ne ñoo ko njëkk def Dionewar xam nga bëre dóor ba am tur bi tur yi ñu euh, am si fii tey si làmb ji loolu moo xoolal mais jonwaa la ñu jàngee bëri jonwaa la ñu fooy jonwaa la ñu màggee waaw li ñu mun li ñu mun nag defuñu ko suñu bopp suñu borom moo ñu ko teg xëy na mënoon nañu teg leneen mais suñu borom moo ñu teg lii teg nattu bi tey foofu nangu ko nangul ko ko xëy na man ak man ak si la yàlla doon tudd nañ ñu nañ jóge foofu ñëw bëre si fii si arène bi ba ñëpp di ñu dëgg ba heure bii xam nga am na ñeneen ñu ko defoon nag ay mag ñu ko defoon mais temps boobu ak temps yi du benn mais am na yeneen xale suñu suñu yeneen raq yi ñu topp suñu ginnaaw tamit yu dëkk jonwaar waaw bi nga nekkee journal lu ñu doon bëre lutte simple ou lutte avec frappe. waaw bu ñu nekkee journal lutte simple lañ xam nga dañ daan fonte ni surtout bi may jàng dama daan def su ma jàngee su ma wàccee damay daw seetaani mbëri yenn saa moom ay ku teg ay tournant ñu ñuy fay ay ñaar dërëm ay juróom xam pour mun a bëre pour mun a gañ mbuusu meew dama si daan finaalu xam nga. mbuusu meew bu toll nan. waaw mbuusu meew juróom yi rek. mbuus mi da teg ñaar dërëm pour gagner am mbuus mi. cinquante personnes wala vingt personnes. pour benn mbuus meew bu juróom mbuus meew bu juróom rek day am mbis am mbisik mbisi bi catégorie à part lay doon am goroyaa bi goroyaa moo nekk yu mag yi man nag catégorie bu ma bokkoon chaque catégorie heure bu ma demee ba bokku si damay bi dama koy jël dama koy jël ba gars yi ne ma fu mu toll nii yaa mun de suite ainsi de suite noonu lay demee mu commencé ngemu si mbapat yi. di nañ taxaw foofu nañ taxaw seetlu ci ci ci mbuusu meew bi léegi yow boo bëree tournoi bi ay mbër yu bëri nekk fa nga bëree gagné mbuusu meew bi mbuusu meew bi noo koy def ak ñi nga àndal waaw mbuus mi ni ma koy def ah xam nga boo boobu temps xale rek dañ koy jël rek sotti ko si ndoole xooyal ko rek naan ku nekk naan xam nga mooy li naan nen moom bu ko mboole bokkee mun nañ ko mayonnaise waaw noonu lañ ko daan def quoi. Mhm. mais est du yéen bëre bi moo la ci doon neex mais du du du du li ngay gagné. waaw amuñu bëre moo ñu si neexoon parce que làmb ñu dëkk ñun suñu dëkk dëkk làmb la. dëkk làmb la parce que amour bi moo ñu si neexoon quoi diw bëri na diw moo gañal lii la moo si neexoon quoi moo ñu si neexoon mais xam nañu mbuusu meew bi ñu ñu fa ànd ñëpp mënuñu jëriñ dara boobu temps booy lañ après bu ñu demee ba si biir amay mbapat yi am si dëkk bi may jàng may bëri ji di làqatu sama musée yenn saa yi dama daan jàng ba ngoon gi ma daw cours dem bëri ji su ma demee bëri ji élèves yi dem ba découvrir yooyu boole ma ak musée bi yàlla def un jour li yàlla nekk li li lay jàpp doo xam fu muy jógee mhm. dem di bëri ji rek si digg si làmb yeeg suñu musée bi seetaan si moom waaw bi ma seetaan si noonu xëy na yaram moo. avant avant avant ngay simmeeku nga ko gis wala bi nga bëree ba pare. non gisuma ko avant ma avant ma simmeeku gisuma ko. mais bi ma demee di bëre ba bëre bi neex ba ma egg ba ay demi final yooyu noonu mu gis ni may bëre ak ni ma gars yi di supporté waa dëkk bëre moom sax ba xolam dafa sot mu duggu si biir géew bi di xaalis bari may ma jox ma si lendemain ma dem jàngi. dafa dugg si ma dugg si rek mu ne élèves yi jóge ngeen tàccul ko élèves j encouragé ma waaw ah, kon boobu daal maanaam moo la dooleel jour boobu. waaw moo dooleel jour boobu ñu koy Moussa Yadou maa ngi koy nuyoo passage bu bëri bëri bëri um, noonu laa def nag di bëri si tournoi ba yàlla def ma bàyyi jàng xam nga. man nga bàyyee jàng. man classe góor rek CM2 xam nga rek. CM2 la ñuy baax mais teewul nag lépp lu ma. est-ce que daan mbër bu jàng leçon amul de. <laughs> non non daan moo jàng leçon mais dama daan faral di def dama doon xool booy bi gën a mun jàng si école si si si suñu classe. donc ko doon napp. ma woo ko si ginnaaw ñu toog si ginnaaw ma bokk bokk ban mais bu bindee jox ma ma recopier comme moom mais du ma def du ma du ma trouver comme moom quoi. damay fausser fausser leen nii fois du xëy si dem toogee benn côté wala bàyyi la ba nga a ñëw. Ah. bu boobaa bu ñu wàccee bu metti si moom. Ah. waaw. léegi nga jógee foofu lan moo lan moo la lan moo la lan moo indi sa xel nga jógee Dionewar ne xaaral ma dem Dakar bëri ji. waaw li indi sama xel ma jógee Dionewar ma jógee Dionewar ñëw Dakar bëri si boo xam ne parce que nit ku ne dañoo ne bitig borom bitig mbaga bu ne boobee boo xolam magasin nga fay fekk. Mm-hmm. après ñuy ñëw di ñëw ay mbapat booy bambara di am vie sama bi doon dugal scooter bi sànq kooku sama nijaay la si man quoi. ok nijaay la sama mag la. boobu moom tam daf may woo téléphone ma ñëw si mbapat bi. waaw def si foyee falaam xam nga am si li ma si am delluwaat yenn saa ma dugg ay biir phase yi bëri foofu am ñëwaat après ma dee ba ne ba bëri ma ne ko tons ne ko grand frère est-ce que ñëw fi jotagul mu ne ma noo jotagul. heure bi mu la daan moment bi mu la daan woo ngay jógee Dionewar di ñëw Dakar. Mm-hmm. bi nga fi daan ñëw ñi nga daan dasel. Mm-hmm. est-ce que ñooñu daan ngeen xam ñu bëree ci làmb ji. non boobu daan naa daan dégg ay ñi ay ay tur yu mbër yu mag mi ñooñu ñoom ñoom ëpp niveau quoi. daan naa fa dégg ay ñoom Socé. Mm-hmm. ñoom Badiga. ñoom Saalum Saalum. barke bu paasal waaw ñoom Tafa. booy koy nuyu xam nga. boobu Tafa booy bambara mu bu mu nekk mu ngi nekk si ay digg ndëndam. waaw boobu man dama daan bëri si booy mais dama ko gis muy baax. fekk na mu dugg mu ngi di si ay digg ndëndam di daan ay ñoom Mathia Pereira ay gars yooyu rek sama xol soo dama ñëw si géew yi teg ko mën a ko sigal ñu bëre boobu nekk gu si équipe bi quoi xale fukki desene ma ko segal ñu bëre mu ne booy dama lay gaañ de après noonu ba mujj ñu bëri noonu xam ma xëy yàlla yàlla yéen na moon si. ku daan non mujj ñu bëri sax. mujj ñu bëri jamono yooyu mais dama dem ko daan fekk muy ngi mu ngi neex ne façon neex boo xam ne danaa ñëw boo dañ may yàqal fii laay ngémmoo si kër gi laay ngémmoo dox ba foofu te su ma demee li fay nekk sama warsak naa ko jël bi ma fay bi ma jël drapeau bi ma fa jëloon ki nekk sama coach suñu tey hmm. suñu coach teg Seydou Diakhaté moom laa fa finaalul jour boobu noonu si moom laa daanoon foofu final. yàlla dafa ba pare heure ñëw fi jotee sama grand frère bi woo ma dama heure ñëw fi jot na pare si laa ñëwee fii di commencé di jàng. nga ñëw nga ñëw effectivement pour toog. concentré wu ci làmb ma ñëw effectivement non nekku ñoom pour toog sama fi di fi entraîner. yenn saa ma gàddu sama saak génn dëkk bi dem ay côté Fatick yooyu côté Gandiaye yooyu dem seetaan làmb simple bëri ji yàlla di ma si may li ma li may suturloo ñëw toog. ban moment ban moment nga toog xam ne man mi war naa ba lutte avec frappe sama premier combat. waaw bi bi ma toogee bëri di ay frappe boobu tournoi bi Gaston tëggoon la. premier bokk bokk la premier kalafam bi. Mhm. dafa tëggoon premier kalaf ñoom tamit ba pare mu tëgg deuxième. Mhm. deuxième bi mu deuxième bi mu tëggoon nag après si laa fa si si laa duggee duggaat. bu mu ne Tapha bu dugg Tapha ne ko may dugg booy na duggaale ba après man peut ma duggaale si yeneen tournois yi mu ne ko man ak wulli Ousmane Diouf doomu jaraw ñu kaat yooyu noonu. sa premier combat arène yaakaar la woon. sama premier combat maag doomu jaraw noonu kaw la. doomu kaw la ah. nga daan doomu jaraw ma daan ko waaw. est-ce que moment bi nga koy jël ñi la say mbokk est-ce que da waxuñ woon kii moo la jiitu ci làmb est-ce que doo ko xool keneen doomu Jalaaw. waaw moment bi may jëloo fekk am na bëreew ma dafa am ku ma woon ku mel ni Pape Mor Lo testé woon naa ko mbëre li simple cité bisaab fii yàlla may ma ñu bëre bëreew métti jour boobu. météo waaw yàlla may man ndam si ko ma wër ko ndomb gars yi grand ñëw fekk ma foofu ma wër ko ndomb gars yi foofu atourment mais teewul man lañ. ay bànn la ñooñu. waaw teewul teewul man joxoon man lañ joxoon kii bi quoi ndam li. ndam li mhm. ba pare si la gars yi ñëwee na pour ma dugg si tournoi ba ñuy wax ko sama mbokk am na ñoo xam ne daaxoon si man wala teelu si man. Mhm. mais ma takk sama fit. mais lii dara affaire go affaire de góor la rek bàyyi ma dem quoi. tournoi boobu yaa kan ak kan la woon. man la man la wulli doomu jalaw Ousmane Diouf. Mhm. nga bëgg a doomu jalaaw daan ko. waa am wuli. waaw ma ñëw am wuli stade Demba Diop ñu mu jël ma man maa ko jël sax dama ko jël bu mbot bu mu mbotee mbot bi baaxul ma samb samb fii laa fii laa sama RK bi fii daggee sax si boobu si gazon boobu commencé guñ def foofu suuf waaw mu mbot ma ñu tarxis ñu ñaar ñu sappandoo mais ni mu def action bi moo tax gars yi jox ko victoire bi. Mm, après ma ñëwaat troisième zone bi tam ma amaat Ousmane Diouf ma daan Ousmane Diouf. ma jóge ci Ousmane Diouf. Mm, waaw ma jóge si Ousmane Diouf dal si ñaari yaar. ñaaya mhm. ma jóge si ñaaya fekk avance am gaa ngi ko fi teg di ko teggi. ñaaya ñaaya amoon ay moment koo ne ñaaya da fi wàcc. koo ñaaya da fi wàcc. la moo nekkoon boobu nga ñemee taxaw jël ñaaya moment boobu noonu ak ni ñaaya toll. waaw boobu man damaa xam sama. moo sut moo ëpp moment avance bu benn mbër dafa ne ma ne ko kan la ne woon ñaara ma boobu ay comme ay. ni mbëri benn xalaat bi nga koy jël. alquraanu karim moo ma si benn xalaat est ce que xam nga ne moom jour boobu laa la simile sàpp. amoo moom benn xalaat di tiit ne kii war naa ko mun a daw war a mun woon parce que dañu ma ne avant am na benn mbër bu ñu jox ko moo ko sama grand frère ma ne ko kaañ ànd foofu lañ doxee ba kër paa bi mu jël avance ma jël avance bi dugal sama poos ma ne sama gars yi ma bokkal ma ko soobee. at bi sifflé sa diggante yow ak ñaar yaar. waaw bu at bi sifflé xam nga ñu léewatoo xam nga njool la ndaam ak njool ñoo léewatoo boobu moo tudd dóor yi moo tudd boobu man ñu ñu léwatoo xam nga ñu léwatoo mu sànni ku ma baare mu sànni ma baare troisième coup bi di ñëw rek ñu tase suuf buñ tase suuf may jéem sol naax muy sol naax ma génne naax bi rek war ko ndombo eto ko. mais li ngeen bëree foofu yéen ñaar buñ la tegaatoon tey andiwaat ñaar yaa di nga ko defaat. waaw même chose. <laughs> <laughs> bi ngeen bëree foofu amul. di ko nuyoo paasaan na champion bu cool la quoi di ko ñaanal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm mhm. jël ko. wàcc ak moom waaw ma daw jël ko wàcc moom tegal ko siis mu bañ ba sonn ndeysaan mu bañ ba waaw. mais day tëdd. ba jógee ci ñaar jëlaat kan. ma jógee si ñaari yaar ma jógee si ñaar yaar yu ma juum Cheikh Junior la am. Cheikh mhm. bi yow waa Pikine dafa mel da nga am ceg Junior ñu ñëwaat tam yàlla mayaat ma si bu am ndam. Mhm. fi mu toll nii ñaata a nga toll si ñaata combat. instant yi am na neuf victoire. cinq défaites. Mhm, la moo euh, tollu ni mbër ñi. mais chaque jour damay gis ñi ngay jël dañ lay xaw a ëpp lees dañ lay sut ëpp la mais teewul saa bu seen avance ñëwee da ngay da ngay sawar ci jël ko ba pare sawar bëgg ñoom lu tax loolu. waa xam nga <laughs> loolu gars yi kii mais bu ñu duggee si digg géew xamee. su nee tolloo ni maanaam ñi ngay jël dañ lay ëpp fuuf. waaw xam nga loolu day am si adversaire xam nga loolu day am si day am si adversaire yi. Mhm. mbër gars yi mën nañu gis ni si jëmm nga sol sa yére ñeeg ñu xeeb la mhm. mais boo duggee si géew bi yow sa diggante ak adversaire bi ñu doon naataangoo naan kii moo la sut wala moo loolu a dégg ci ko damay xam nga ñun suñu yaram bi ñam xeebuñu ko mais suñu doole bu ñu yàlla suñu borom may tam ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax xam nga ñun lu ñu am nii xeebuñu ko mais teewul tam lépp lu ñuy def jom lañ koy defee bari na ay mbër yi nekk fii si arène bi mbër boo mbër boo fi teg muy entraînement muy saal muy géej ga ak lu mun mu munti muy physique day bàyyi te man mun naa waat ne man bokk naa si mbër yi nga xam ne ñoo gën a ñeme entraînement Sénégal waaw man mun naa ko waat man te keneen ku di man tam mun na ma ko seedeel man. mais nekkul di tagg sama bopp na mais dama dama dama nekk athlète nekk sportif waaw. kon yow daal su ma déggee wax ji mooy soxlawuloo yéen yi mbër mbëri def naan doom jël ay anabolisant yooyu noonu bokkul bokkul ci yi ngay def. non soxla moom parce que ku ne ndew ni nga war a toll sa at yi ngay sa yow li nga li nga war a màgg ñaari at wala ñeenti at. nga ñëw bugg ko màgg si benn mois est loolu jaadu na. ci waaj combat donc waaj combat loolu du loolu du baaxu si. sànni ma ci lance appel am na mbër yoo xamante ni nii xalaatuñu après. ñoom làmb ji ak ki ñuy bëreel dayoo boobu lañ kii te pourtant dañ ciy gis ñu bari ñoo xamante nii suñ ci jógee dañ ci jëlee ay feebar yoo xamante nii nii pour nga dabuwaat sa kii day xaw a metti damay dégg gars di ko wax ñu ne euh, jël pois moo gën a yomb fuuf jël poids ba noppi bëgg a jeex. waaw gis mooy loolu parce que xam nga yow da ngay jël pois bi nga war a jël ba pare ñëw jël ko suba bu subaa nga ne da koy wàññi. Mhm. boo koy wàññi ay gàllankoor la yi ngay da day fekk day fekk sa yaram bi primé yàqu yëpp. xam nga ñun ñii ñun suñu fanu bu ñu am nii yàlla yàlla suñu borom lañ koy sante xam nga ñu yàlla ñu jël suñu su ñaan naan jël naqasu dul noonu suñu lex yi def nii jeex yi génn biir bi def ni xam nga boobaa nekk si loo xam ne. nga obligé sax làqatu. waaw sa santé sa santé dootu la may yenn yi xam nga doo am santé bu baax loolu baaxul quoi te man mi am na koo xam ne tey jii kooku dañu daan tase géej mosuma ko xam sax kooku man maay tax mu man maa tax muy internet. benn gars tey la ma woo téléphone man maay tax muy internet. mais daf ma gis sama physique neexoo sama lépp neexoo maa tax muy entraîné mais man moom man man de naturellement man man nii laa yàgg a mel man de naturellement yenn saa gars yi may topp naa ma ay di nga war a jël poids comme mbëri mais man sama poids sama doole te gars yi xamuñu poids mooy poids mooy gaaw doole mooy gaaw nga am am mooy gaaw waaw man am naa poids mbër ma dugg si digg géew su ma la jàppee di nga xam ne di nga xam ne góor la jàpp. la ma waral nga jóge ci loolu nga bàyyi nga fekk fi ñëpp bàyyi. bu ñëwee bu boo ko fekkee Thiès mu defar la bu ñëwee Dakar tamit noonu nga nga ñëw jël ko coow lu ci am ñëpp naan caat day font caat day font caat lan moo ko dugal ci lii ba ci man mi bokk naa ci ñu waxoon loolu. Hmm. lu taxoon nga nga defoon choix bi dem jëli ko moom. kan ambulance. waa léegi li taxoon ma ambulance ñu war a bëre daam sama benn xarit boobu ñu ngi koy wax Dario Das maa ngi ko nuyu Paza Warxa sama doomu ndey sama xarit la di nuy waa gang bi yëpp xam nga mooy sama président fans club daa mos a seetaan combat ambulance mu ne mbër kii yàggu lu mu yàgg-yàgg yéen ñaar di ngeen bëre ma ne ko man tam ma ne ko tôt ou tard man moom du ñu bëre moo automatiquement bu combat bi tegoon loolu dama xamoon dañoo bokkoon yoon di dem quoi dañoo bokkoon yoon di dem noonu la dem moo tax ma kii tôt ou tard yàgg-yàgg nañ tase bëre pare bi combat bi taxawee sama xel si loolu la njëkk a daj. Hmm. mais ñi la jege doonuñu woon wax caat est-ce que est est-ce que loolu lañ doon xalaat de. yee loolu lañ doon wax ñaan caat ambulance dafa diis si moom dugg na fi génn fi mais teewul tam li ma doon entraînement ko doon entraînement ak sama coach nekk samay ruq xam ak samay mbokk waaw ma ñëw le jour yi yàlla may ma ndam si kawam hmm, te li ma entraîné rek loolu laa bëreeg moom. nga ñëw tegal ko sañ-sañ mu yegg la fu sooy nga tëgg ko mbot. Hmm, waaw gis nga loolu la rek parce que mbër moom lépp làmb moom lépp loo gis làmb kele boo gis ngay def si si làmb la day fekk nga jàngoo équipe ba pare. Hmm, te boo parce que action boo xoolee tam day gaaw waru yéex. entraînement sax dégg naa moo gën a yomb bisub làmb ja. waaw entraînement moo tax nga payee ci moom. ñëpp yaakaar fa nga jëm nga ne du ma fa génn lu tax loolu choix boobu noonu. <laughs> non caat dafa bëgg bës caat man daal man man caat ma xaw a jaaxal. caat daal li fi ñëpp bàyyi moom day bëgg chaque jour di ci teg loxo wala boog chaque jour ñu naan booy bi booy bi. non non du question du bëgg bës ak gis parce que dama fa génn dama jóge foofu dem si Modou Anta xam nga nekkul question pour dëkku Modou Anta làmboo moo fi jaaroon sama diggante ma ñu ma waroon bëri nanguñ moo jël moo doon tam ñu ma waroon bëri nanguñ ko jël xam nga combat bu ñu ko. moment bi nga dëkk da nga ko doon dëkk pour nii wala da nga ba nga amoon. dama ko moom. non moo doon moom da dañoo waroon bëri man moom parce que yoon la ñu bëri man ak moom xam nga après si làmb foofu la ko suñu borom jaarale ñu bëre yàlla may ko ndam sama kaw. Mhm. mais teewul tam lépp lu waroon si combat bi def nañ ko xam nga ñu bëri combat bu neex combat bu rëy grand combat bu jooju waaw ngeen duy ko ba mu fees waa ñaari ñëpp génn mhm. nga ñëw làmb ji mu jógee Thiès ñëw wala wala jël jël si revanche rakam waaw ba waaw noonu loo xam nga lépp loo gis rek noonu la parce que dafa bëri sama benn doomu ndey bu nekk ñaatali sama doomu ndey daan ko man tama bëri doomu ndeyam daan doomu ndeyam. man waaw xam nga maa koy nuyu de passage xaw ma foo nekk dinaa la ñëw jël si bëgg naa laa gis lool xaw ngaa jafe nag. waaw man tam maa ngi ko nuyu passage galas maa ngi ko nuyu bu baax a baax di la ñaanal santé bu baax yàlla indiwàll nga dellu si waat suñu biir parce que da ngaa bokk si làmb te làmb da laa soxla. waaw. Hmm. nga bëreeg moom mu daan la. waaw moom mu daan ma xam nga yàlla def ma demaat defarwaat amaat beneen combat tamit ñaaxaat ko ma xam ne lépp suñu ndogal suñu borom la teewul découragé wu ma defu ma dara ma xam ne bëre daan ak daan ñoo ma kon daanu dem jëli infra rouge. feu rouge waaw moom tam mu daan ma xam nga. ma gëm yàlla rek xam ni ma xam bien vrai que. di bi yow yaa ko tànn wala promoteur la ko proposé yàgg tegal la dañ ñëw tegal la xam nga jamono yoo xam ne si defar nga jógee. Mhm. bon nag moo ne buñ la proposé mbër amoo dara loo si war waxtaan sa staff ma waxtaanee staff yi am ñu d'accord ma jël ko c'est que bëre xam nga bien vrai que tam préparation bi xawoon na yàgg. tey la ñuy bëre suba la ñuy bëre grand suba la ñuy bëre loolu xamoon nañu handicapé. xam nga ma ñëw bëre Farouz moom yàlla may ko ndam sama kaw. combat bi métti ci yow loolu nag. métti woon na trop sax mais dépp ko teg si loxo yàlla xam ne yàlla moom li muy may jeexul ma dem defar waat xam nga ànd ak samay mbokk nekk samay entraînement ma ñëw sama diggante ak armée yàlla may ma si ndam. Mhm. am tamit yaa ko taa mu jël ko. waa armée dañoo waroon bëri parce que dama daan ambulance mu daan ambulance lamb boole ñu tamit ñu sëgg bëri. Ah, waaw moo waaw. ngeen sëgg ba yàlla may la ndam ci kawam waaw yàlla ma ndam ci kawam ma ñëwaat tam amaat beneen combat le 13 sama diggante ak moo jë. su ma yëgtee suma téléphone. Ah. ma woote. Ah. jot booy bi nekk euh, côté côté yoof yooyu noonu paas loo ko loo koy wax. non daa mel ni moo ngi sonné de est-ce que sax <laughs> moo jë ci loo yaa ngi am jàmm. waaw dama seet si tey sa sa muy caat man xaaral ma jox la ko ngeen nuyoo yéen ñaar. caat sa waaye ngoog de <laughs> waaw Samb maa lay ziare si loo nekk lépp jàmm waaye saa man la seet si woon tey jii pour ñu wax si affaire combat bi ba l'essentiel daal ma li ma wax daal maa ngi samay ruq di entraîné ba le tëree incha allah ma ñëw defal la lu métti comme li ma la waxoon rek en tout cas daal fii dafa teng te bu jour baa nga xam ne fii dafa teng waa di la ñaanal jàmm di ñaanal say famille jàmm ko xam nga ñu dem bëri ci làmb si jàmm yàlla may ma ndam ñibbi si jàmm waaw. waaw moo jaar ci kanam après naa def fii. Euh, Thiat. nga ñëw. dem jëli Modja. lan moo tax lan moo tax chaque jour Thiat di bëgg lu metti te dama fi gis des fois mbër yi dañ ci gis ñoo xamante ne dañuy tànn yoon di wut ay mag di leen daan xam nga di wut ñoo xamante ne peut-être entraîné wuñ wala nekkuñ ci daaw wala jóge ci ay défaite mais lan moo tax chaque jour ngay bëgg di jël booy tànnoo yoon benn yoon lu tax loolu. waaw man c'est que man. parce que man gars yi man làmb sama tur moo jiitu sama sama tur daa jiitu si làmb rek mais maa ñoom moo jaan xam nga rawante ñu lu bëri si làmb xam nga daa def ay preuve bu ñëw war a bëri si ñu bëre làmb moo ñu boole dañuy bëre ba nag su ma nekkee fii di taxaw naan ñi ma war a bëre nanguñu bëreeg man mën naa toog def année balance te li ma war daa bëri. xam ma jël moo Modja nangu na bëreeg man nangu naa bëreeg moom ma jël ko sëgg bëreeg moom parce que moom may xaalis maa ko may xaalis làmb moo ñu boole leen lu làmb boolewuñu waaw dama ñaam bu ñu eggee ba le jour treize yàlla may man ndam si kawam te si soobee yàlla yàlla dina ko si kattanu suñu borom mais est-ce que xam nga Modou Dia yow est-ce que xam nga Modou Dia xam nga maa ngi dégg sa biir wax nga ne bañ a année balance moo tax nga jël mm-hmm. a toog bëreewoo moo ko wala boog lan la est-ce que nga Modou Dia dëgg yaa ngi koy suivre. non du ñàkk xam sax Modou Dia xam naa ko ni ma mbër yëpp damay seetaan ay combat am comme ni may seetaan yeneen combat am mbëri yenn saa boo amee làmb damay dem stade xam nga Modou Dia non dama koy jël ñu bëre parce que su ma ko jëlu ñu bëre damay def année balance moom lay def année balance te boobaa ñun ñaa ku nekk da ngay lor sa morom te loolu jaru ko fi parce que làmb lañ fi nekkal xam nga làmb bu ñu soxlaa tam te suñu suñu combat amateur dañ ko soxla dafa jaar combat bu neex la parce que booy xool moom dafa sëree comme si yow ni nga sëyaa ah, doo ko gis yu ko dégg ci yu bari làmb nga euh, mu ñëw gunge ko yow tamit na ko noonu. ñu gis leen ngeen dóor yu bari. bu nekk combat am ten tamit moom su ma juumul cinquante cinquante lay nekk seen gënte ak moom. waaw man loolu loolu bokk na sax ma gën ko naw gën li tax ma gën a jël combat parce que dafa nekk mbër boo xam ne bariwul bariwul lu wax bariwul muy dépassé mbër xam nga bu amee làmb rek nga koy nga koy dégg si signature yi mais bu weesoo làmb doo ko dégg si yeneen ñàkk yeneen détails yu ñàkk fay day xam nga moo tax loolu moo tax man naw ko ak yaram xam nga ak tegginam waaw nekkul te nekkul ne làmb ji moo tax ma koy wax mais wax sa mbaax waaye waa ñu sa mbaax dara mais làmb moo ñu boole tam li ñuy wax ñi yëpp si wax bi fii lay mais bu ñu si làmb ji dañuy jëflante li ñu war a jëflante xam nga jëflante li ñu te bu ñu jëflante itam dina xam ne jëflante naa góor dëgg waaw moom góor la man góor laa mais bu ñu jëflante dañu xam ne jëflante naa góor dëgg mhm. te waa te ma xamoon ko ne waa marché poisson nañu ma yónni yaa xam ti bu baax baax waa marché poisson dañu ma yónni sama nijaay ne foofu su ma sama nijaay ñoo xam nañu bu baax man foofu laay liggéeyee waa marché poisson yëpp yëpp comme ni ngeen waaw comme ni ngeen defoon combat contre am contre armée bi rek defaa leen ko raw ñu gis la nga war ngay pàcc ngay pare mujj ñu gisoon la nga voyage woon lan moo taxoon nga voyage da demoon hivernage wala da demoon noppalu wala. non nekkoon demoon hivernage wala demoon noppalu ji sax xaw moom ni ko moom Dakar bi dañ fi ñëw rek pour wut si pour liggéey si. Mm-hmm. mais pare bu weesoo liggéey bi da dem sa dëkk sa dëkk waaye sa cosaan. toog jëli ne ma waxtaan ak ñoom xam nga di saafonte ak ñoom xam nga parce que ñu lay gis gis bi rek du baax loolu moo tax ñu dem foofu même bu ñu amee bu ñu amee combat dañu foofu toog foofu ak suñu raq yi nekk foofu parce que dañoo foofu bu ne foofu ñun joon waa ñun mag yi si lañ bokk xam nga dem foofu jàppale booy si entraînement yi booy itam du jàppale mag yi fa nekk itam dañuy yokk xalaat waaw di leen nuyoo passage waa école de lutte joon waa a baax a baax. Mhm. école de lutte joon waa bi ngeen dem fa di leen jàppale ñëw ñu gis euh, Prince gëjoon na tëgg làmb boo xoolee toog na yaakaar na deux ans xaw ma trois ans yoo xam te ni di wàccu ci arène bi mu wàcc ñëw soi choisir leen lan ngay wax Prince bés boobu ak lan nga ko na surprise loo xamante ni nii séntu woon na ko ci yéen. waaw Prince moom dañ koy nuyoo passage rek di ko ñaan yàlla dafa ko jàmm dafa ñu jàmm parce que jeune la ñun jeune la jeune la ñun ay jeune lañ quoi am moo xam ni mu bëgg si combat yàlla na ko si yàlla defal mais ñun tam ñu gën a woo supporter ñu gën a wu. parce que xam naa combat bi sax gars nañu ko seetaan parce que combat bi combat amateur la ñëpp a ko bëgg xam nga di ñaanal Prince di ko ñaanal parce que Prince man ni ma ko ñaanal di ko sant moo tax fu ma waxee ma ko gànt mun ma parce que moom moo tax ma njëkk am visa ma ma am visa États-Unis am visa États-Unis dama koy sant côté boobu bu baax a baax di sama doomu ndey bi nekk États-Unis tam <laughs> ne foofu Burkina ñoom ma nee Burkina ñoo xam nañ ku mel ni Aliou Am Seydou Jibi Kapo Alla Modou Fall xam nga ñoom si Brésil ñoom Chris ñoom Diaz xam nga ñoom ñëpp ñoom Amet waaw ñoom El ñoom El ñoom Mapaate xam nga ñoom Serigne Ndiaye xam nga ak sama mère ma nekk fa mama Adama Badji maa ngi koy sant bu baax a baax di sant waa Brooklyn yëpp di sant sama grand aaw bi sant bu baax baax a baax. loolu du ñu bëgg gërëm. waaw ñoo lay jàppale parce que ñooñu ñoo mooy doole tey su ma demee États-Unis ñoo mooy doole tey ñii di ma fayal saal xam nga su soxlaa dara kii dem jëndal ma ko indil ma ko boo yooyu dañoo baax si man dinañ ñaanal di nuyu seen yaay tam yëpp mama mama tati jay na maa lay sant bu baax a baax maa lay nuyoo passage bañ caat maa lay nuyu di la ñaanal gudd fan ak wér nga yokku ma ñaan comme ni ñu ko defoon si combat bi yàlla may ma ndam si combat bi tati jay na ba yaay jibi ak son ak abi maa lay sant bu baax ñu gis la sa sa doomu nday maanaam sa rek sax laay wax muy Siteu jëm ci làmb ju bëri coow te bu bëgg mag maanaam magam kilifaam koo xamante ni muy Papa Sow soo xoolee bëri na ak nees Papa Sow lu ne def na ko ci làmb mu jël combat boobu est-ce que jàpp nga ne dina yomb ci Siteu combat boobu. no ñoom ñaar ñëpp ay doomu ndey ay ay jàmbaar fàkk tëgg dinañ ñoom ñaar ku si taxaw ku si tëdd ba si guddi gi naan sama combat maag diw day yomb day wax lu ko neex. du yomb man si amoon li ma koy xelal man xelal naa ko li ma koy waxal waxal naa ko te di ko ñaana ñaanal chaque jour yàlla may ko ndam. Papa Sow mbër mbër mbër la mbër bu ñëpp ràññee xam ne bokk na ci mbër yi ëpp victoire ci làmb ji. Mm-hmm. bon nag kooku booy bëre moom da koy jox cër te comme naa si da jox na ko cër parce que ni mu respecté combat bi mu si def lu mu war mu si koy préparé suba ngoon gu dëppee dugg sa ay mbokkam di saafonte kay mbokkam chaque jour mais li ma koy ñaanal moom yàlla may ko ndam ndam lu ko jig. mais dama naan gis soo amee combat mu ñëw di ci jàpp moom soo amee combat ngay dem di ci jàpp. Mm-hmm. te yéen ñaar seen une semaine la euh, une semaine la. Mm-hmm. est-ce que dina dina dina yi ngeen li ngeen daan jëflante est-ce que di ngeen ko mën a jëflante comme ci combat bi. waaw ñu ngi jëflante. parce que ñu ngi jëflante man préparation entraînement yi laay wax kay. waaw préparation entraînement yi waaw mooy li ma la wax rek xamal ni ku ne daal fi ngay dem doo bugg sa fi nga war a egg doo bugg sa moroom xam ko. Mm. mais sama diggante maa si fi ñu war a jaar ñu ngi fay jaar ñu ñaar dañu war a waxante ñu ngi koy waxante fi ñu war a tase pour gisee tam ñu ngi fay tase pour gisee. xam nga yenn saa dañuy génn jékki-jékki génn dëkk bi dem village tase foofu dafa suñu entraînement ñëwaat te ngeen ma invité a dem Dionewar woo ma ma ñëw fekk si leen Dionewar. t'inquiète loolu boo bëggee si mois de mars bi ñu dem Dionewar. Hmm. am naa fa làmb boo xam ne suñu waa kër ñoo koy tëgg waa Mbiñ ñene di si woo mbër yëpp nag boo xam teg moom ma seize moom lañ teg daal suñu waa gaal ñoo koy teg ci suba mbër yi mbër li traditionnel yëpp diggante le seize mars ba le vingt deux mars waaw waaw wasaare làmb rek ñu ne si woo ñoom ñëpp. ñoo ngi ci biir waaw. caat ban làmb moo la gën a neex ci say làmb. waaw sama làmb a neex mooy sama combat ak ambulance moom moo gën a neex sama combat ambulance mm, ak armée ñaar yooyu noonu. Mm. Mm. saison bi ñu génn ban combat moo ci gën a marqué. combat bi ma si gën a marqué bala gay Modou Lo. Balla Gaye Modou Lo. Mm-hmm. tax combat boobu gën a cee marqué. waaw combat bi ñu sax mu gën a marqué même bu nekkul affaire de victoire bi ak kii bi sax mais combat dafa nekk combat boo xam ne dafa dafa jëmmaloon làmb su suuxatal indiwaat làmb. Mm-hmm. yëkkatiwaat làmb. Mhm. moo tax ma ne combat boobu ni combat Modou Lo Ama Baldé bi naa def ci saison bi. Mhm. combat Modou Lo Ama Baldé mun naa def ci saison bi ak combat Modou Lo Eumeu Sène bi passé tamit encore parce que yooyu yëpp dafa dafa nekk combat dafa manqué dafa dekki làmb dafa neexal làmb quoi. Mhm. caat am na waykat. man ah am na am naa waykat de. kii sa waykat. sama waykat moom muy fii Grand Dakar Tarba Mbaye. Ah. waaw ah, Tarba Mbaye la boo nekkee si ñeneen ñi yam Pape Diouf ak Waly. Pape Diouf ak Waly waaw. da nga tànn ñëpp bëgg de fi mu toll. parce que ñaa ñoom ñoom ñoo fi. yàlla xew ñoom la fi yàlla tekkee dañoo xew. Thiat am na équipe day. naa équipe kay. Hmm. waaw. kan ma si équipe. a nekk ma sol nii à part NGB. Barça. Barça la ak ña. Ah, dañoo daan. ah non daanuñu sax xam man ni ko nag yaa ma gën a xam ma daa à part NGB Barça mooy sama équipe ak Marseille. Marseille waaw. bu weesoo yeneen club yi supporté nii ay ñoom supporté ay ñoom Sadio Mané yooyu ñoom Gana yooyu noonu waaw. am nga soxna. am na jabar yee. Hmm. depuis kañ yàgg na. am hmm. naa soxna ko mais yàggut. Hmm. maa ngi koy nuyoo passage tam di ko ñaana moom tamit yàlla defal ko xewal xam nga kuy sonn si man la su ma amee samay bés da siy sonn de stressé wu xam nga rek. sa jëkk làmba métti waa sa jëkk nekk si yenn yi yaa ma gën a xam mooy loolu doo am jàmm ne maa ngi koy ñaanal bu baax njaay jaay taxaw di ko ñaanal di wax amal jàmm rek yaa xam ne nga bëgg sa sëy bi yàlla na ko suñu borom defal. dafa ñu may njaboot ju barke man loolu laa mënu ma lay ñaan yàlla defal la jàmm yokk sa famille yëpp yokk sa njaboot waaw. Hmm. lan nga gën a bëgg ci lekk pala. <laughs> loolu dafa gën a bëgg ci lekk ceebu jën moom bëgg naa ko ceebu jën bu weex. waaw fa bëgg naa ko. waaw ceebu ginaar. waxi sa doom nga fi wax fi mu toll. <laughs> ak cere. li nga bëgg ni kenn bañu ko. man ak cere. <laughs> waaw. ah, ah loolu. léegi mën nañoo dem xooli gars yi. waaw ca ca takk jóg waaw. ah ñun la ñun li ñu mën a wax si caat mooy mooy mbër bu wàccee boxam la bokkul ak yeneen mbër yi nga xamante ni mooy loolu mais moom borom baax la quoi moom ñëpp la may. waaw ñëpp la may ñëpp la sëkk ak jàmm borom baax la awul benn problème waaw bëgg na ñëpp daal xolam yaatu na te ñun ñu ngi koy ñaanal moom si combat bi ñëw nii. yàlla may ko si ndam si barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te dafay am borom xol bu rafet la waaw am na jàmm maa ñaan daal lu muy nu muy mel nii yàlla na ko yàlla may muy continuer après muy am ay victoire rek yaa am gën a xam. merci ah sama gars yi. ziara neex na. ok Thiaté borom baax la moom ku yàlla dimbale la quoi di ko ñaanal ndam euh, daal macha allah comportement bi nice na communication baax na ñoo dëkk ak moom dafa daal en tout cas daal dama ko ñaanal jàmm yokk ba yokk si lu baax mu xam li bëgg yàlla na ko yàlla may ku sérieux la. ku am yar la ku am jom la ku gëm moom la bëgg ay mbokkam man fi laa nekk quoi mais xamal ma ko lenn lu dul rafet di ko ñaan jàmm baax nag yan yàlla may dem saayir ak baatin barke yonent bi alayhi salaam waaw jërëjëf Modou merci bi ma attelé bi ah kooku mooy kooku mooy waaye gërëm yaay ko waaw moo wax loo xam si caar ak bi yow waaw danay may xaalis amin amin kon jeex na jaamu si yow papa mu maa ngi dof bi. salaamaaleykum. ñii ma foog ma jël leen. ñii foog ma jël leen salaamaaleykum. sama gars yi waa Wassare Lamb de ñoo fi jaar soo seet si caat aada waaw caat naka lay dund ak si koñ bi naka lay dund ak si koñ bi. ah salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah mën naa ne caat moom ah am na yar am na teggin caat moom instant yi moom zéro faute quoi mën naa ne moom. yàlla na ko yàlla lafal cat daal yàlla na ko yàlla dimbali waaw yàlla may ko si combat bi muy jubal si yàlla may ko si ndam bu neex a neex a neex a man moom mën naa ne nit ku la yëg moom war nga ko mën a yëg de sérieusement parler moom mën naa ne yëg na ñëpp day kaf ak ñëpp fii lay romb sa gis gars yi taxaw mu ñëw dugg seen biir day gis xale yi sax ñëw di bëreek ñoom dugg si ñoom fubal def lu nekk xam nga tey yi nit ku oyof kese ko mën tey ji ku oyoful du def loolu yëpp man daal mën naa nee daal yàlla rek lañ koy bàyyil daal yàlla na ko yàlla fay xolam yàlla na ko yàlla dimbali yàlla gën la taxaw may la gudd fan ak wér bàyyi la fi ba suñu kanam a kanam a kanam a kanam ngay am ay victoire rek yàlla taxaw gën a xam combat bi moom ndam rek mbër <laughs> asalaamaaleykum waa Café gaa ngi mafia baa ngi nii gaa ya baa ngi nii tey waa Wassare Lamb ñoo fi jaar si woon seet ma ak ni ngeen di préparer combat bi ni ñuy waajee combat bi waaw. ñun moom daanaka pare nañ. waaw lépp lépp mën nañ ne instant bii ne xam nga du ñu tàmmal rek ak sëñ Touba. xam nga ñun du ñu tàmmal ñu ànd ak kuy ragal ak Seexul Xadim. moo jëm moom instant yi moom xool ay waxam jotagul instant yi moom na dëkkal boppam. lépp lu mu naan wax nag dégg naa ko man man dégg naa la mu naan wax bo ci ginnaaw seen bi ñu signé contrat bi mais naka na tey rek xaar mujj bu bëree dama koy daan mujj bu xeexee dama koy duma. ba duma waale sax waaye bu ma wax loolu waaye keneen tamit voilà. <laughs> man yi loo si xam. waaw mbër mooy loolu gars yi ñun bàyyi ñu lay wax nga jox entraînement yi gën a jàpp rek barki Serigne Touba ndax bis boobu suñu bis la ko waa barki Serigne Touba dañoo war a jëli ndam li indi ko fii alxuraan na rek mooy loolu booba tey bàyyi billaay wallaay yàlla yàlla def jàmm rek ba bis rek billaay wallaay ah nga xam warxaa ngi ki mooy warxaa. Baye Fallou Ndiago yi. waaw loolu leer. Baye ah, maa ngi nii maay Baye Fallou Ndiago yi. di profité di nuyu sama mbokk yëpp. wax leen ñu jàpp si combat bi nag di woo waa Guinée Bissau fépp fu doomu Ndiago nekk rek bu jàppalee caat daa mel ni man mii la jàppale ndax sama doomu ndey la maa ngi moom làmb boolewuñu kii mun naa ne séeréer la mooy Ndiago mais suñu ànd du làmb mais di ko ñaanal nag yàlla na ko yàlla may lu kawee njortam quoi fi ñu jëm ni incha allah le 13 avril ah dafa nekk bés boo xamante ni ah wax sax baaxul mujja teel rek la caat wax laa lay wax fii dafa teg de. billaahi wallaahi fii dafa teg nag wax ju bari gi nag musoo bu bari wax nag mais nga jël caat di bari wax mais di nga xam ne lépp dëgg la incha allah rabbi yàlla nañ fi dégg bàyyi bàyyi la fi yow incha bu abi bi sifflé billaahi wallaahi taala yàlla nañu yàlla defal jàmm rek nga am jàmm caat am jàmm ba bés ba incha allah yàlla may ñu lu set wecc sa kaw incha allah rabbi loolu laa koy ñaan. waaw mafia solo baay loolu ni daw. <laughs> tus na. tapé waaye dañ koy waajal rek yaa ma gën a xam ni nga ko doon waajalee rek lañ koy waajal. Mbodia loo doon wax yëpp arbitre bi soufflé déggalal sa bopp rek barki su lu métti rek si yow lay jugee barki alxuraani karim ñooñu fi nag ñooñu fi nag ba tey nag. yaa ma gën a xam ñu Mor Thiaw xooluñu ko sax ñu ñeneen lañuy xool Mor Thiaw day xaar su yóbboo mu xam loolu nag tous su jeexee la jeex na Mor Thiaw day xaar force billaay walaay. waaw mooy loolu comme ni ko gars yi waxee rek fii mooy mafia fii mooy kafe gi waaw Mor Thiaw dara xewul dara xewul tus nag waaw ndam rek la ñuy laaj si kàttanu yàlla ndam mooy am li ma mun a am fii dafa teg mooy loolu fii dafa teg si kàttanu yàlla te li nga xam ne fii dafa teg waaw jërëjëf ba jëlaam Thiat ñu yegg ci kàddu yu mujj soo amoon looy tàggoo ñooy gërëm looy wax. waa lu may tàggoo mooy li may ñi gërëm mooy maa ngi gërëm sama waa gaale ñu ma dëkkal sama waa koñ ma kenn ñoom ñëpp sama koñ cat ba cat maa ngi gërëm ñëpp den di jégalu den di baalu xam ne su ma amee combat xam nga lu nekk la ñuy gis lu nekk la ñuy dégg maa ngi baalu ak si côté boobu xam na di sant sama grand monsieur grand Zil grand Amatior xam nga di sant seen i jabar ñoom ñëpp. di sant sama copain ne fii zone A ku mel ni Mor Maas Mamour Pulo Yankuba Sëriñ di sant waa Toglu tam xam nga di sant waa équipe Grand Dakar waa équipe Dour Baxasaar bàyyuma kenn ñoom ñëpp su ma waxee équipe bi yëpp sant naa ñëpp mel ni coach Père Da Grand Zil Grand Seydou xam nga Grand Mbaye Faye xam nga di sant sama coach yu nekk Saal ku mel ni coach Théo xam nga coach Papis ak Mamour ak Abdallah xam nga ak Baye di sant ñëpp daal di bëggee ñëpp di gërëm ñëpp di santaat waa tam waaw ñu gën a jàpp si combat bi surtout Lamine Diassé maa lay woo si combat bu baax a baax Lamine Diassé da si siy jàpp bu baax ak Sidi Ndiaye bu baax a baax ak ak Siyaaka Ndiaye ak Jaylaani ak Tafa Ndiaye waaw ñoom ñëpp maa ngi di woo si combat ñu si ak waa kër gi yëpp ñu jàpp si combat bu baax a baax te naa ñu si jàpp parce que ma amee combat dañu si bu baax a baax sama nijaay yooyu noonu. Mm-hmm. waaw woo mbay ko ba nag rek marché poisson yaa ko res waaw. kontaan nañ mbokku Wassare Lamb Wassare TV tey lii la leen andiloon seeti leen caat. am làmb làmb ju neex la treize. defe naa ne kuy bokkam ku nekk war ngaa jóg ndax xale bi maam xale bu mën a bëre la di sant ñëpp di sant sama cameraman bi Adama l'infatigable xam nga sama waay la kontaan naa ci yow di nuyu sama gaay nuyu Cama Cama yaa fi jaata yaa ma kontaan naa ci lool maa ngi nuyu subaay sama goro bi xanaa tey kontaan nga tey doo wax da Zubaay bëgg naa la bu baax a baax di nuyu waa EDS yëpp waa EDS Jibi Diop Mbodj Iba Diop yooyu ñëpp maa ngi leen nuyu Jama Ndiaye yow xam nga ma xam ak ah ñoom Khady Diop ngoone siis maa lim kenn sama ASC bi nag ñëpp maa ngi leen di nuyu. waan Ndefleng tamit di sant waan Ndefleng ah waan Ndefleng maa ngi di sant bu baax a baax jiital nuyoo di ko teg si loxo Lamine Thiaré Sarr mu tasaay man nuyoon def waan Ndefleng yëpp bàyyi ma kenn nuyu ñëpp waaw ak waa Soxna famille Soxna famille moom jox naa ko Birama Ndiaye mu tasaare ko waaw. kontaan naa ci yéen ni lañ ni lañ koy defee rek yeneen bëri na ngeen ma xaar Lac Rose Garga Mbossé Gouye Gui Boy Niang maa ngi ñëw Adama. jaajëf